ah asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa àdduna maa ngi leen di nuyu ñu fi jot a teew di sant yàlla di julbu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu waajur bu jigéen di ko ñaan yàlla yàggal ko fi di sant waaw mouvement Fouta Tampi yëpp ensemble Sauvons le Fouta ma jël ko teg ko ci Baye Niass di sant waa Y'en a marre ñi ñu dalal ñi nga xamante ne ba ñu xamante ñoom ba tey ñu ngi ñuy jàppale lu ñu yëg ak lu ñu yëgul perte si temps ñëw ci ñun te mënoon nañu woon a xeeb waaye defuñu ko ah di sant tamit sama frère Abdou Karim Gueye ci déplacement am ñëw ba fii képp ku fi ñëw rek ñu ngi lay sant di la gërëm conférence de presse bi nag leen rek ko wund dañuy ndawi réew bokk ci réew mi duñu ay ivoirien duñu ay malien nationalité sénégalaise lañ yor juddoo fi yaroo fi màggee fi di fay impôt di daggi taxe kon dama fa tey sunu institution may nañu ku sañ a taxaw ne bravo kontaan nañ ñun bu kontaan nañ amuñ sañ-sañ ñu taxaw ñoo gis ne ne sunu àq ak yëpp dañ koy bafoué à chaque fois boo xamante ne rek ñun gis nañ lu anormalul ñu génn wax rek nguur gi dañuy xoqatal nguur gi day bëgg damm suñuy tànk nguur gi dañuy jël ba bëgg ñoo génnee réew mi nguur gi day dem bay jël ay nit ku utiliser pour ñu ñëw ci ñun di dal suñu kaw te loolu duñ ko mën a nangu à l'espace de 15 jours motul un mois toxu naa ci ñetti kër moo mujjee toxu bi moo def ñetteel dafa seenituma toxu nag dinaa toog jàmbaarloo nguur gi ñëpp a gis nañ ni tournée économique euh, président Macky Sall muy dem Fouta comme te nee na Fouta kii di foncier la ñu nangul ko it ndax man dama ne ko boo naan kii di faussaire dangaa juum permis d'occuper lañ la joxoon te sa occupation baaxu ñu nangu suñu permis waaye moom bu demee bëgg a dem tournéem mën a louer ay oto mën a jël gasoil mën a louer sax ay nit parce que maa ngi liste ay nit yu ñu louer ñii ñoo xam te ne 25000 lañ wax ak ñoom ñu dem ba yegg ñu jox leen 15000 francs ñu mujjee di ci xeex ne duñ ko jël waa léegi ñun amuñu sañ-sañ ñun sol suñuy t-shirt ne ñun ñi kontaanuñu ñu dara yaruñu arme blanche yaruñu fetel defuñu dara lu dul sol suñuy t yor suñuy pancarte yor suñuy banderole dagg sunu billet dem ba Fuuta uniquement pour ne président ñun bégguñu ndax lan ñu diggoon ñëpp gisuñu ko premier mandat ñoo àndoon ak yow fal la ñëpp fu sénégalais yëpp daa dee ne Macky Sall ah, waa Fuuta ki am 12 ans sax voté na ñu dégg lu ne ñu amoon benn slogan di wax neɗɗo ko bandu bande noon woni tinɗomo bande woni ganduɗomo bande woni jiiɗo ko jiiɗa ko bande woni keranomo ene ñambanma kono bande aɗa kolɗoma caggal manam nit mbokkam boobu ñuy wax sa mbokk mooy ki la yëg sa mbokk mooy ki la safoo sa mbokk mooy ki la sa mbokk mooy ki lay nemmeeku sa mbokk mooy ki nga xamante ne gis na nga nekk ci ay jafe-jafe mu dindi say jafe-jafe gisuñu ko mu toogaa deuxième manda à notre grande surprise mu def ñu bingeel mooro moor taax ñenn jul da ko caggal jul de morto ma faran fàcce lañ ko ci koor ci baam mhm. mu ne doomu lettkat du lettu ba su julli après julli lay mhm. defe naa kon sénégalais yëpp ay doomu lettkat lañ war a doon ndax dama foog ne président président wu Sénégal ñëpp lay war a doon boo compale fi war naa compal fee waaye bu demee lu toll ni Fuuta mu doomu lettkat jabel mun sawee si foofu te nag nangatuñoo nekk doomu lettkat ndax rapp nañ suñu bopp bari na karaas am nañu teeñ gis ñu ku ñu firi ba ñu wax xottumaan ñu nit te doo ci nangooti ndaxee bàyyi dem nañ Ouro Sogui nag a sunu manière génn nañ président war a dem tegi pose première pierre hôpital bi ñu sol suñuy t-shirt yu taxaw naan fuuta tampi fuuta maay waaye nag man duma sunu force de l'ordre laa njëkk a ŋàññ ndax damaa foog ne bu ñu toogee ñun si ñun ñun ñoo leen di fay ñun ñoo yëkk suñu xaalis suñu xaalis sa leen di fay sunu kaaraange seen loxo la ne waaye bu ay nervi yi ñëwee suñuy force de taxaw ay nervi yi ñëw dal suñu kaw dañu dóor man mii di jigéen ñu dóor ma ba daane ma si suuf ñu jël beneen xale bu jigéen yàlla dafa def sutura dafa jiitaloon beneen yére ñu sumi ay tisetam sàcc suñuy portable jël suñuy banderole jël suñuy pancarte dóor ñu ba ñuy bëgg a dee dóor yi bu nekkoon benn yoon sax mu tañ waaye ñaari yoon ñu dóor yaram yëpp a di metti waaye ba tey dinañ ko gérer noonu gendarme yi daal day ñëw bi gendarme yi ñëwee naan maan waaw da ngeen war a taxaw fii ne woon naa ne bu leen bougé fii ma ne ko amoo dara looy wax moom commandant man ma ko yéen a ñu njëkk a parce que yéen a jàkkaaroog ay nervi man du ma wax nervi sax ay bande recruté laay wax ñu jàkkaaroog yéen en tant que force de l'ordre ñu ñuy dóor deful leen dara jàkk leen dara am benn gendarme bu génne ne ma santal yàlla man su ma woon jàpp nervi bi intervenir heure bi doon fekk nga dee mbaa ñu damm la mbaa say bañ rot maa ngi nekk hôpital man ko nga osé wax lii mu ne dama lay wax rek léegi nag euh, commandant bi daal di koo calmé commandant bi ne ma maa ngi jéggalu commandant bi si bopp ne ma maa ngi jéggalu léegi ñëw leen ngeen taxaw fii boo leen fi taxawee président fii lay jaar bu fi jaaree dina leen gis te di ngeen wax seen soxla ñu ne ok mu ne ñoo leen di encadré mu daal ñoo encadré ñu taxaw nervi yi ñëw comme tali moo nekk suñu diggante ñuy côté bi nervi yi ne ñu gën leen renforcer ñu ñëw waa bib aussi ñëw ñu indi oto waa bib yu bëri euh, renforcer waat gendarmerie bi ñu nekk naan Fouta Tampi Fouta maa yi leader di jàll ak seen oto di dem ba mu jékki-jékki benn garde rapproché président daal day ñëw wàcc ci 4-4 am am ku mu oo ne ko lan la lu xew xam naa kooku ne ko waa Fouta Tampi ñoo taxaw nii donc ñu daal di maa woo ñu bëri ma bul wuy ji ma ne ko de dama koy wuy ji ba xam lu muy wax ma daal di jéggi fekk ji ko foofu mun na ma lii lan la ma ne ko dañuy revendiquer suñuy droit Fouta 1977 hôpital Ourossogui sax dañu ko inauguré woon muus yeeg béy yi yi ñoo fa boo amee malade sax amoo sañ-sañ yóbbu ko fa boo fa yóbboo malade bu sonn ñu war kaa defar analyse analyse bi dañu koy bindal ne la demal ba Touba nga def foofu analyse bi yaa sa yaa sa nga door a ñibbi sa muy muy lu kenn mun a xam may wax mu ne ma waaw bu nekk même bu nekkee loolu la amu leen droit di sol fii tiset yu du fi taxaw ma ne ko si tañuy sol tiset tur dañ fi taxaw mu ne ma avancé leen ba ci kanam a kanam ma ne ko du ñu avancé fen fii la ñuy taxaw suñuy droit lañ nekk kenn du ko dindi ah mu dugg ci otoom dem woo benn nervi wax moom dugg ci otoom dem cinq minutes après président war a yegg si nervi ci boppam ana nervi ak sànni nit bomb rek nëpp euh, grenade nervi yi sànni ñu grenade ñëw dalaat suñu kaw gaañ ñu bëri nangu ay portable daf lu leen neex samay garde du rawale ma ñu daw dugg benn kër bu ñu duggee benn kër am benn euh, xale bu góor bu yoru jakataa xaw ma ko sax mu daal di daw ñëw ne Fatimata njaay laay seet sama garde du corps ne du ma yegsi mu ne ko dimbali ma ngir yàlla ñu yegsi ma yegsi si ko bëgg a dimbali vie mu en danger xaw ma xaw ma ko yàlla xam na ba tey xaw ma waay daal di ñëw na ma génnal dëkk bi léegi léegi bon maire dëkk Ourossogui gi j'ai oublié son nom Moussa Moussa Moussa Bokar Thiam ay nerveux lañ ñu jël ñaari auto pick ma génnee manifestation ma dugaatuma sama kër fi ñu wàccoon luwee jël ñaari auto ba sama biir kër ay nervi pour ñu attaqué waat ma ñu wax ñu ñu yëg ñu obligé sama ñoom di jaay ak ñeneen ñu daadee indi ay oto ma obligé génn oto bi ma duggoon duggaat ci beneen oto bi war a soogi nga njëkk a yëg jot ko kanel mais ñu daw rawale ma ba kanel ba ci àllu kanel bi ñu toog ko ba géewe passé ma rallier dakaar jël àll bi di daw pour rallier waa Dakar ñu xanaa ñu duñu ay sénégalais te sénégalais yi yëpp laa jël en témoin gis nga problème mu nervi bii buñ ci teelul la jóg fere ne ko fi mu jëm du baax ba jamonoy baax force de l'ordre moo waroon taxaw sécuriser ñëpp waaye ay bande recruté ñuy jàpp ay doomu aadama di leen dóor ci kanamu force de l'ordre ñu wax dara du ñu wax lenn jonna nag ñu dañ ko man nag Fandiaye damay wax man dama part personnel man dama part personnel dama koy wax te lu ma ci góobe gar ko dinaa ut sama arm dinaa ut sama permis si jigéen laa ku ma attaqué danaa dal sa kaw lu ma yoon may ma jël parce que nag du ma nangu tamit man ñu may rey balaa ñu maa rey fagaroo gën faju dama yor njaboot te sama yaay dama dama yónni yàkkamti ma beneen bi mooy euh, comment dire euh, lii yeneen euh, lii nu mu tudd organes yi mooy de l'homme xaw ma ñoom amnistie ak ñoom ñëpp ñu ngi gis nervi yi nu ñuy lëmbaajee kenn nangu wu cee wax dañ cee war a wax kilifa diine yi ak kilifa aada yi ñoom ñi nga xam ne problème bu am dañuy génn wax ci nañ ñoo wax ci problème nervi yi sinon guerre civile dina am Sénégal te bu ñu matul ci lañ jëm parce que nag kenn du nangu yow nga dëkk ci dëkk war a revendiquer say droit saa yoo ko ñu génneel ay nervi nañu dal sa kaw nit ñi nag fu mu jëm du baax te ñun nag ñun jóg nañ taxaw temm ñun bokk dinaa porte plainte fii ci Sénégal dinaa porte plainte international fu sama fu sama kàddu mën a yegg ak fu ma mën a jooytoo lii ba ñëpp a yëg ko dinaa ko jooj dinaa fa joxañ baaraamu tuuma man nag duma ma tuumaal kenn du ma wax kenn président Macky Sall laay wax parce que si tournée économique bii ci la nervi yi demee te nervi yi am Fouta masul am Fouta masul am Sénégal yi ñu andi nervi fële ci Fouta masul am Sénégal ça veut dire que mënul ne moom yi muy dem yëpp te yi muy dem yëpp day romb nervi yi mun na nekk sur nervi yi parce que moo nervi yi ñoo ànd kon man du ma ne nervi sax ñoo ñu dóor mais moo ñu dóor te gis na ni xew Fouta te on reste on compte pas dinañ dem lu ñu am ñu jël loolu mooy li ñu buggoon a wax ma bëgg cee dolli leneen am na ñu ay sites yoo xamante ne ñu ngi reprendre naan Fatimata Ndiaye Fouta Tampi a été euh, président Macky Sall da ko da ko recevoir man président Macky Sall recevoir ruma recevoir le Fouta Tampi ensemble sauvons le Fouta. te soxla aussi mu recevoir ñu parce que ñun suñu xeex bi xeex bu noble la. combat bu noble la li ñuy wax tamit naan ay dafa am ay opposants yu ne suñu ginnaaw arrêté leen loolu ñun benn opposant newu suñu kanam benn opposant newu suñu ginnaaw ñun dañuy dem avec notre propre moyen may sant tamit di gërëm waa diaspora waa Sénégal parce que ñun ñi bi ñuy dem sa Fuuta ñi dañoo may 5000 ñi may ñu 1000 francs 200 sax yónnee nañ ma ko wéevu uniquement pour ñu dem xeex bi parce que xeex bu noobu la ma ci profité tam di sant président Ousmane Sonko gis nañ su ci am taxaw na ci diggu télé bi yëpp wax sunu def conférence de presse am am lu mu wax ba ne léegi na ñëpp a ne Fouta Tampi ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que tamit ku lay soutenir foo toog da koy sant di gërëm mais bàyyi leen ngeen di jël nit di wax dara ñu ne diw moo ne ci ginnaawam wala diw moo koy financé kenn financé wuñu kenn newu sunu kanam kenn newu sunu ginnaaw Fouta nag mu ngi sunu kanam mu ngi sunu ginnaaw Sénégal mu ngi sunu kanam mu sunu ginnaaw ndax Sénégal la ñun ñor rawatina Fouta sant naa leen da gërëm leen jërë ngeen def balaa balaa ñuy jox kàddu gi euh, euh, kii nu mu tuddati Euh, mun na ci ñëw après ci question yi balaa balaa ñu jox Abdou dama lay dalal rek wax la ni mouvement Y'en a bi mu juddoo mouvement Y'en a bi mu juddoo y'a dix ans yenn journaliste yu Agnès moo ne seen ginnaaw n'est-ce pas parce qu'il est de Kaolack parce que waa kër gi son Kaolack te xamuñu ni Y'en a marre li ko sos c'est une diversité du Sénégal ñu ne Moustapha Niass ñu jóge ci loolu ñu ne Abdou Latif Coulibaly dem nañu ba ne finalement est-ce que du mouvement satellite bu Karim Wade créé juste pour brouiller les pistes lu ne wax nañ ñu ko donc loolu bu mu leen décourager bu mu leen dévier de votre chemin continuer leen xeex bi ngeen di xeex donc dañuy de rek daal di jox kàddu gi Abdou Karim Gueye bu euh, bu nitu dëgg avant boobu je pense qu'elle tenait elle tenait à faire un message en alpulaar aussi voilà ayca résumé xanaa di woo aussi 23 juin ngeen bañ koo fàtte mercredi benn symbolique. HLM Grand Yoff waaw HLM Grand Yoff ah. mën a ñëw teewe aussi na ñëw. Mhm. léegi mën naa wax en pulaar ah. ok assalamualeykum bandiraɓe assalamualeykum sénégal mi sammini on onon journaliste uji wonɓe ɗo ɓe mbaɗa yetta allah noon mbaɗa juula e allah sallallah alih wa sallam yetta jinnaɗam mbaɗa yetta dengagal mouvement fouta tampi ensemble sevolo fouta mi fayo junggo bañas e double cerveau eyi weltare no feewi arde ɗo henna hannde sege yanamara haaɓe gaha min gaari ɓe teddini min e kolli min yeeso ɓe bettani min kadi jeese allah jogui jobdi yo allah yooɓon mani samin kadi abdou karim gueye ko ɗum kak wiyama allah jarama o jarama min jiddarde makko hamin kalda e fuutankoɓe kala to mbawɗon wonde ɗon goni ɗo joomi kisale nden ko allah wone moon ko arde ɗo tan siftinde holko kewi to to wuuro soogi e podor hamin jano toon par ce que président makky sall koko yano économique politique o luwiɗo no otoji men o ƴetti gasoiluji men hay yimɓe luwama nawama pour yimɓe fof yo dar mbiya eskey seydi sall a liggima e fouta minene min daari min mbi ana eskey o ligganaki min komin coyno e makko min dañani min ɓonni wutteji amen boɗeji min jogui barancarte uji amen e base uji min jogaki laaɓe min jogaki layset min jogaki kaaƴe sona yaade holude président min beltaki min dañi noon ko ganduɗa ko bettere e uh, mette e ɓernde saabu hande ko ɓi fuurankoɓe ɓiɓe fuurankoɓe pi ɓiɓe fuurankoɓe ɓiɓe fuurankoɓe koye mum pi ɓiɓe fuurankoɓe min jalti min darima sona fuuta tappi fuuta mayi